ngeen doon xaar day yegsi na rajo leeral rajo conducteurs yi rajo taximaan yi rajo chauffeur yi 96 point 1 ci Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 Mbacké Touba 93 point 1 ca rajo bi leen di gën a jegele ak xibaar rajo buy leeral ak rajo leeral léppay leer ak rajo leeral kumpa jeex na seen premier numéro li askan bi di dund ñu ñëw fii ci pikin ci école bu ñuy wax euh, école euh, Pikine 2 set fi nag euh, benn association école bi nag am na lu ñu daan dund ci ay jafe-jafe wala sax saafara nañu jafe-jafe yooyu ndax association boobu moom moo ci taxaw moo tax nag tey suñu numéro bu njëkk ci émission bi nga xamoon ne askan bi ñu ñëw seet si association boobu ngir waxtaan ak ñoom léegi-léegi bu ne taaxee loolu laa mi ngok ñu ngi leen di nuyu rafetlu encore une fois ànd bi ak programme yu leeral TV ni ma leen ko waxee woon sànq ñu ngi fii ci Pikine euh, ci euh, nag euh, école bu ñuy wax école Pikine 2 set fi benn association Euh, bu ñu duppee association des anciens élèves de euh, l' école Pikine 2 euh, maa ngi toog ak président bi ak membre yi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ci nekk seen émission nag li askan bi di nekk premier numéro bi ñu nag ko tourné fii ñëw seet si leen parce que école bi am na ay jafe-jafe yoo xam ne ñu ñi ngi ci nekkoon association bi juddu am ci def ci nag ay jéego yu am solo ñu ni nag pourquoi pas ñu seet leen tey ci premier numéro bu njëkk bi ñu ngi ak toog ak Ousmane Thiam moom moo nekk président bi ñu ngi lay baax la nga nuyu téléspectateur yu leexal. salaamaaleykum wa rahmatullah. Mm-hmm. Ah, soxna si ñu ngi leen di dalal jàmm. Mm-hmm. fii euh, ci euh, ancienne école 2 bu Pikine. Mm-hmm. di tey jii groupement scolaire. école bi dafa jur ñaari école waaw ah, tey muy groupement scolaire. daaru Pikine mhm. hmm? ak Pikine fii lañ leen di dalale jàmm waaw mhm. ah, association bi leen fi euh, dalal euh, jàmm nag mhm. euh, ñu ngi ko créé am na un an précisément le 16 juillet. le 16 juillet 2022 précisément ñi ko taxawal mbir yàlla ndax ñoo xam ne gëj nañ gise gën gaa neew ñeent fukki at pour l'essentiel ñu xëy na juróom fukk wala lu ko ñoom la yàlla dajale ci jamono ñu gis école bi ni mu mel ñu xalaat ne war nañu euh, dellu ginnaaw ku démb ndax démb moom mooy dëgg ndax dañ ne relation yi gën a wér mooy yi ñu sos bi dara dul dara <laughs> bi dara dul dara relation yi ñu sos ci école surtout école primaire <laughs> benn la ci relation yooyu ñu ne kon nag il faut que ñu taxawal kuréel association <laughs> boo xam ne si li koy tax a jóg mooy dëgg la euh, ñu di ñu mën di gisewaat comme nañu nekk woon démb ak bërki démb di dimbalante sunu biir di mën a taxawu sunuy njaboot waaye nag ndax waruñu fàtte démb école bi nga xam ne si ñun ñëpp jaar nañ fi tey li ñu doon ginnaaw yàlla li ci bari fii la jóge ñu ni kon école boobu dafay laaj ñu jox ko njukkal maanaam lépp loo xam ne si lu ñuy mën a jàppale parce que bu ñu fàtte ne école primaire léegi communes yi ñoo ko yor ci cadre décentralisation bi les domaines de compétence neuf domaines yi nga xam ne si état jox na ko collectivité territoriale yi donc éducation bi ci la ci niveau école primaire yi en particulier pour les communes waaw ñu bañ a fàtte ne it ci école yi am na association des parents d'élèves ñu bañ a fàtte ne am na comité de gestion donc ñun suñu taxawee suñu kuréel pour ñëw jàppale waaw def ci sunu loxo donc loolu la. waaw association boobu nag euh, bureau bi nga xam ne si donc moom la ñu taxawal bu yàggul ñenn ci membre yaa ngi fi ñaari vice président ñu ngi fi bureau bi c'est un bureau de dix membres. ñaata membres ah, dix membres waaw. Mm-hmm. donc ñaari euh, donc am nañ président am nañ cinq vice président vice président bu nekk président wu commission la hmm, ñu fi nekk dinaa leen présenter léegi ñu am. secteur général ak adjoint am trésorier ak adjoint waaw ñi fi nekk ci bureau bi teeru leen fii kenn ci ñoom mooy alaaji Ousseynou Ndarim Diop waaw sol lu bi la lii ak casquette am bu jekk dina dina dinañ ko dégg dégg ñoom ñëpp nañ leen dégg après moom <laughs> uh-huh. mooy vice président bu chargé des infrastructures tabax yi tabax équipement bu dee dañu soxla machine wala euh, imprimante imprimante mu ngoog en plus de l' assainissement ah moom moo yor environnement hygiène waaw environnement ak hygiène nag xam nga buñ ko waxee ci école yu mel nii lu am am solo la surtout voilà euh, bu ma fa jógee donc fii ci sama gauche vice-président am di Fall moom moo yor communication. mooy seen ah. naataango. suñu naataango la moom moo yor communication yor mobilisation organisation ah voilà donc partenariat yi moom moo ko yor. moom euh, donc bon ñaari vice-président. Hmm. léegi am nañu. secrétaire général adjointe mi ngi nii Adja Tuuti Ndiaye ah ñu am trésorière Adja Thiamé Mbeng hmm. jigéen ñi fàttewuñu leen de. <laughs> waaw noonu la parité ah, voilà jigéen ñi fàttewuñu leen ay jàmbaar lañ ah nag ñoom xam nga comme ñoo kër yi ñoom ñoo yor kër yi. waaw surtout ñu dénk leen xaalis ñu dénk leen xaalis lu ñu bëgg aussi. mu bokk ñu dénk leen xaalis mu bokk. léegi ñu am trésorier. général adjoint. adjoint waaw ah, Alaaji Soumaré. d'accord hmm. donc euh, ñoom donc ñoo fi nekk membre bureau. waaye nag ñu ànd fi ak suñuy frères suñuy sœurs. yoo xam ne si ci association bi la ñu. ah waaw Moussa donc euh, ci association bi la nekk ci commission bu Ndarim waaw ñu am sunu sœur Mintu Munte Gujaabi ah dëkk fii sax ci wetu école bi daanaka moom këram école bi prolongement këram voilà ah ñu am fi du di ah waaw léegi foog naa an Ousmane Ousmane Ousmane. ah Ousmane mhm. ah, sama turandoo war ma ko fàtte. Ousmane ah. depuis que ñu ma tuddee Ousmane Ndiaye la. <laughs> voilà donc ñu am fi ñooñu. Mhm. waaw donc euh, euh, kii Daouda moom. mooy moom mooy gardien bi. léegi euh, association bi def na je pense que membre yi jeex nañ voilà mu ngoog ñu ñoom la waaw waaw ñu teeru waaw ñuy bu baax wax dara parce que bi mooy suñu émission bu njëkk li askan bi di dund ñu ñu tourné ko fii te mbégte la également suñu mais école bi dafa am ci ci peut-être nu mu doon doxee bu njëkk ba ngeen amal ci macha allah coppite parce que ku ko xool léegi ak image yi ngeen ñu wan ñu ñu xam ne liggéey ngeen ci naka naka ngeen def ba taxawal association bi naka la leen dikkee est-ce que da ngeen toog ba ci yàgg gis euh, jafe-jafe yi nga xam ne euh, jeunes yi ndaw yi fi nekkoon ñu ngi ko doon euh, jànkonteel ngeen taxawal association wala da ko dund parce que fi ngeen jaar. waaw xam nga euh, am na jamono. Mhm. état bi ginnaaw mu gis ne mbiru école yombul. Mhm. état dina ci dugal loxoom. commune yi ko jox. dinañ ci dugal seen loxo waaye communes yi ginnaaw ñu transféré leen ay compétences seen doole demewul noonu état bi gis gis ne kon am na ñeneen ñoo xam ne war nañ mën a ñëw dugal seen loxo. kon da ngeen am apportu état. waaw ci école yi dafa am ñeneen ñoo xam ne donc état jël initiative ne baax na ku ci nekk fa nga jàngi woon démb ak bërki démb. nga dellu fa waaw donc am loo fa mën a def loolu dañ ko defee at ci ginnaaw daanaka école yu bari recevoir woon nañ ña fa dekkoon démb ak bërki démb waaw fii dellu ci ginnaaw waaw bañ jógee ci loolu nag waaw la kenn ci ñun ku baax ku ñuy wax Mamax Diop daal di nag taxaw ni yëf yi nag warul yem ci lii war nañ di gën di gise di gën di jàppalante waaye di gën di taxaw suñu école hmm. parce que booba it école bi ci anam biñ ko gisee woon ah doyoon na li ngeen liggéey lépp da ngeen ko def ak jàppandalu état kon mën nañu wax loolu jàppale leen waaw waaw en euh, dañu dañu jàppale donc état buñ ne état nag non mais eh, da ngeen jàppale mais ce que je veux dire mooy est-ce que état jàppale na leen en retour ci li ngeen di liggéey. non euh, euh, en en en il faut dire que fi ñu tolloogum. Mhm. fi ñu tolloogum demandé gu ñu woon donc appui wu kon lii lépp yéen yéen a ko liggéey mhm. par contre aussi la commune parce que bu ñu fàtte ne état dafa jox compétence yi commune. Mhm. daaw. le maire de la commune recevoir nañu ñu waxtaan ak moom démb recevoir laat nañu ñu waxtaan ak moom daaw bi mu ñu recevoir te fekk booba donc ñu ngi woon ci liggéey bi moom it muy enseignant wu école bi gis liñ fi jot a def ñu ne ko nag liñ fi jot a def euh, dafay baax parce que xam nga construire. Mm-hmm. réabilité am na solo waaye nag entretenir maintenance comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. dafa am solo ñun nag léeg-léeg loolu dafay xaw a sooxe ci sunu réew yi du wax Sénégal ci sunu réew yi. Mm-hmm. waaw dafay xaw a sooxe moo tax nag bi ñu defaree toilette yi ñu xam njëriñu toilette. ndarim dina ci ñëw dinañ ci ñëw léegi ak moom uh-huh. ci lañ ne. te toilette yi mu laaj waxtu wu nekk muy set bu ñu fàtte ne Covid jaar na fi ah ci lañu waxtaan ak maire nag ne ko toilette yi baax na mu teg fi koo xam ne si moo koy entretenir régulièrement mais boobu fekk na yéen def ngeen li ngeen def fekk ñun def nañu daan li ñuy def ba pare. waaye nag léegi école li gi waaj ubbi léegi mu ngoog léegi école li ngi waaju ubbi. léegi ñu ne loolu il faut à la kuliyaalin loolu mënul ñàkk waaw vraiment moom tamit mu jël ci engagement ne ñu nag bon fii ñu toll nii euh, ressources yi nga xam ne si moom la ñu war a jot jotaguñ ko waaye mën naa leen wax ne incha allah bu ressources yooyu ñëwee te am na yaakaar ne du yàgg dinañ fi teg koo xam ne si moom mooy toppatoo loolu waaw ba démb bi ñu dajeek moom wan nañu ne ci école yi lenn ci li mu gën a jox importance mooy li jëm ci hygiène waaw ak ndox waaw mm-hmm. donc moo tax état fi ñu toll nii laajaguñ ko dara waaw ñu ngi dem nag ci sunu yéene seen yéene seen mën-mën ak seen kàttan waaw ëllëg nag mm-hmm. parce que ëllëg état du ñàkk dugg parce que groupe bi bu ma ne groupe scolaire bi fi ñu bëgg a jëm suñu responsabilité de mais ñun suñu yéene la te dinañ ci def sunu loxo ak sunu xalaat waaye nag dinañ ci ànd ak commune bi ak état bi pour que fii mu nekk un centre d'excellence. d'accord école bi ñaata ñaata classe la woon. mu nekk. un centre de référence. ñaata classe la woon. ñaata classe la woon kañ. bu ngeen avant ngeen ciy dugal seen loxo. li ngeen ah non non non dugal suñu loxo. Mhm. école bi euh, nii la toll woon rek. d' accord nii la toll woon les deux écoles. Mhm. parce que fi mu nekk ñaari écoles léegi ban apport ngeen ci def. alors li ci def ñun. Mhm. gis nga du gis bon gis nga gis nga tey ji yaa ngi gis école bi classe yi nii ah. waaw yii yëpp dañ leen réhabilité. dañ leen defaraat waaw. donc les portes et fenêtres. yi ngay gis nii yëpp. daaw lañ leen defal. dañ leen dindi yëpp daaw ngeen ko defal defalaat leen. ah voilà donc la peinture yëpp. naka noonu. Mhm. intérieur extérieur. Mhm. tableau ci classe yi naka noonu banc yi lu ci yàqu woon naka noonu ah yi moom toilettes yi moom kenn mënu fondu waaw waaw boole ceeg nag ay toilettes yu yàgg yoo xam ne si. ñi ngi woon fii demuñu dikkuñu. jox ngeen ñu image loolu yëpp toilette yi gis nañ ko ah, ni mu meloon avant ak ak ak léegi. Mhm. mu ngoog ba ci lu mujj. Mhm. parce que fi mu nekk nii gis nga bloc bi ngay gis ci ginnaaw. Mhm. waaw fi mu nekk nii. ñu ngi koy defaraat fi mu nekk nii. blocu six toilettes la. fi mu nekk nii ñu ngi koy defaraat. foofu it c'était abandonné. waaw te xam nga loolu dans une école comme ça ay xale bu ñu soxlaa seen bopp te mënuñu dem seen bopp. loo xam ne donc mënuñu ko denc. Mhm. dañuy obligé génn ci école bi dem ci. dem ci kër yi mu jàkkaarloo waaw te waxtu wu ñu génnee rek risque la pour ñoom. Mhm. waaw donc loolu moo tax ñu taxaw fii. Mhm. ginnaaw loolu it di jàppale ne parce que amoon nañ problème mu imprimante waaw dañu daal dem documents yi dem di ko photocopie yi fu sori waaw ñu jëndal leen ñaari imprimante kon ci nekk. ñu mhm. jëndal leen imprimante. ndax photocopie waaw donc imprimante yoo xam ne effectivement comme ni nga ko waxee dañuy photocopie bu mhm. ci nekk waaw ah ñoom bi école tijjee ba enseignants yi ñëw ñu ci bari xaw nañ dellu ginnaaw ni kii du suñu école bi ñu fi bàyyi woon mhm. parce que loolu ma wax si en l'espace de deux mois dañ ko def daaw. xale yi tonton lu lépp sans ci apportu état xam naa dinañ ci ñëw ak ak ki nga xam ne moo yor wàllum xaalis bi. association bi kon macha allah de. Ah, sant yàlla. Mhm. xam nga xam nga tuut tànk. Mhm. nga jaar fii. Mhm. ah ñii ci année cinquante yi. ñii ci année ci année cinquante yi. ñii ci année soixante yi. ñii ci soixante dix. Ah, tey daanaka man naa ne tey daanaka ñi nekk ci association bi ñëpp pratiquement ay retraité la waaw su mu nii sax dañuy bëgg a xëcc nag. sunu jarbaat ak sunu doom yi nga xam ne si ñooñu ñoo topp ci uh-huh. ñun waaw te nekk en activité uh-huh. waaw bon ah mag nag bu ko yàlla suturaalee uh-huh. donc loolu alhamdulilah sant yàlla waaw lañu yàlla suturaal ah ci loolu la ñu defaree lii waaw sama sunu trésorier adjoint mi ngi may fàttali ñu def nañ fi plus de cinq million waaw cinq millions daaw plus de daaw waaw léegi cinq plus de cinq millions comment vous avez fait peut-être am ngeen apport même bu fekkul ah, état bi ay autorités yu leen jàppale. déedéet kooku ñun rek la. yéen rek yéen raxul ngeen daara raxuñu waaw te nag euh, lenn rek la de ci ñi fi ci ñi fi jóge waaw parce que booy xool fi mu toll nii foog naa ñu ngi ci autour de deux cent li ñu li ñu li ñu li ñu li ñu jotoon a recensé. Mm-hmm. mais xam nga lu ci nekk dafa am fu muy commencé ak fu muy jëm. waaw fu muy jëm nag wax naa léegi mais xale yi xëy na ñu xale sax parce que ñu ci am 40 ans 50 ans. Mhm. waaw mais ñu ngi en activité ñu dañuy ñëw ñun ay mag lañu après dañ leen di bàyyee. Mhm. waaw ñu bu ñu leen wanee yoon bi teg yeen ci yoon bi li ci des mooy dañu leen di gunge ñaanal leen ñoom ñu jël responsabilité responsabilité waaw waaw donc moo tax ma ne vraiment état dinañ ko soxla de waaye ci kanam. par rapport ak fi ñu bëgg. fu ngeen bëgg ñu école bi ñëw waaw d' accord léegi bëgg naa ñu ñu jox. Euh, tonton euh, Ousseynou ki yor euh, lu jëm ci wàllum environnement bi. comme ni nga wax sànq hygiène bi voilà bu fekkee rek dinañu mën a jege si tuuti ànd mu nga jox ko micro bi rek peut <laughs> voilà je pense que xaw na ma xaw na ma kii mais baax na tonton Ousseynou ngi lay nuyu bu baax a baax. Mhm. baax. Uh-huh. dalal. Uh-huh. jërëjëf waaw voilà ñu ñu ñëw tey ci euh, tonton Ousmane mi ngi koy wax sànq nga bokk ci euh, li nga xam ne moo di association bi ngeen def liggéey bu am solo mais gis nañu image yi euh, xam naa dañu ko dinañu ko wan su ñoom paawamar ak maawum mi ak ak ak yirim comme ça ñi ñuy seetaan mën ko gis école bi ni mu meloon avant ak fi ngeen ko indi lu surtout lu jëm ci wàllum hygiène tonton Ousmane mi ngi koy wax sànq naka ngeen def tey euh, peut-être ba taxawal école euh, li nga xam ne moo di toilette nga xam ne suñu ñëw fii sax ci li mu gën a tënku ci hygiène boobu la ba tax nga wooñu waaw euh, daanaka ñu def bureau bi mm-hmm. dañoo créé commission yi mm-hmm. ñu jox ma commission environ mm-hmm. bu ñu ma ko joxee rek ma ne leen samedi damay def état des lieux bu ma ñëwee fekk gardien bi Daouda Fall fii suñu doom maanaam su maamam moo nekkoon fii mais bu ma ubbulee toilettes yi dama reculer j'ai crié hmm, ma ne leen lii mbaw boobu ngeen doog a taxawal association bi waaw defagu leen woon dara waaw rek ñu ne gars yi wax ma fal ma ñu jël initiative commission environnement si association bu jël si école mhm. xam nañ lan la mhm. tey ma ne leen man damay seeti état des lieux état école bi. parce que mm. environnement bi laa bëgg a mm-hmm. mais man lu may njëkk yi xool mooy toilette mm-hmm. mais bu ma gisee toilette damay yokk daw toilette yoo xam ne dañ ko abandonné des années des années mais bu ma ko gisee ma tëj ne leen baax na ma wëri indi na fi problème yu la demee rek dama xëy ak toilette ak sama commission ñuy jàppale boobu si seen xaalis ngeen demee ba tey suñu xaalis ba à fond personnel xaalis ñun ndax damay fëgg rek gars yi jóg xool xaaruñu kenn. fëgg gars yi ñoom ça veut ay autorités yu leen jàppale. non pas di autorités yi ñun la. yéen seen biir rapport ñun les anciens. d'accord maa ngi école ñëwal mu daw si ñëw. joxe la mu am grésil omo lañ soxla loolu lañ commencé. grésil omo. Mhm. gars yi daw si biir omo yeeg yooyu. ñu indi ndox yeeg yooyu. lool la ñu commencé gis toilette. gars yi ne ma toilette ma ne ko kenn du ko toj. yi dañ koy réhabilité dañ ko réhabilité. mais bi ñu fa xëyee ba dix huit joxe image yi mais jour boobu laa ñu commencé di cent mille deux cent mille. ba un million di ñëw. ñu ngi gisee état toilette mu toile. yoo xam ne ñun nii dañoo jóg. foos yëpp a amoon mbalit. foos yi dafa bouché woon am mbalit. mbalitu fii yëpp àll bi yëpp foofu lañ ko doon def si foos parce que kii tubalet yi latrine la latrine maanaam fosse bi day day nekk toilette bi ñëw tegu si koor mais day am foo xam ne ay ouverture la mu toj ñu si dem mbalit lépp nekk mais yëpp la ñu dóor génn ko ba mu set dama am ossature bu ñu ñëwee rek dañuy liggéey ma jël gardien bi da koy jógal moom kii moom c'est à remercier. macha bu mu ko woyee rek day jóg ak ak borom lu vert la. waaw borom mu tudd ngi tudd Daouda Fall. Daouda Daouda man tam dama am ossature boo xam ne mhm. dañoo am spécialiste kii. bi ko defee rek je kii di président. Mhm. am na ñu bëri dañu am cri du cœur xaar ñoom ñooy njëkk a daw si. Mhm. délégué de quartier bi. kooku c'était un cadre de la banque. macha allah <laughs> mu ñëw fii la jàng ba ñu màgg ñoom ñëpp daw si. ñu ne désormais chaque matin ñëpp ay ñëw fi ku nekk dañuy indi ay bool di teg bu mu di jotee ñu ñam continuer liggéey bi ñëpp bi la waxee image yi amul président amul ñëpp ñëpp a sumeeku di raxas. di raxas. ba toilette yi mel ni buñ la ko ubbi leen nga mun nga fa tëdd nelaw fa naan mhm. xam nga lan lañu njëkk a def soulagement les riverains. xale yi daaw ñu dugg si toilette yi dañ doo dem si ñii riverains yi di leen ñaan pour dem toilette di leen ñaan pour def ndox pour naan ndox mi sax xale yi problème am mhm. mais bu ñu réba réhabilité toilette mais ñëpp a kontaan ñu ubbi ko def si lu si war mhm. léegi nag gis nga lii yëpp gars yi def mooy hygiène ñu ne école bi warta tilim xob wala këyit wala plastique war pour am si école dañ éducation environnementale bi am ñu maintenir école bi daal di jëmbat ay garab am na garab yoo xam ne ñu koy jëmbat am na tey ren jii def nañ déboisement benn garab boo xam ne amu fi woon solo ñu dindi ko war ko remplacer fleur yi tam ñoo ko def mais daaw école bi nu meloon bu école yi bi ubbi mais dangay xale yi dañoo bëgg ba yeneen xale yi dañ doon ñaan di wax seen ay parents fii lañ bëgg ñu inscrire leen mhm. moo tax ñu regretté wuñ ko parce que note yu xale yi am buñ la ko xingati fay nañ leen ci note non dañ ñoo dañ ñoo fay ba wis ñu avec de très bonnes notes loolu mhm. tamit euh, lu baax la mhm. ñu leen siy gërëm tam parents d'élèves yu fekk si donc dama parents yi mais pas association wala leneen ñun dong na forme personnelle la. ngeen demee volontariat moo am mm. ba gaañ a. yi ñaar ñaar la woon jokk ngeen ci wala dangeen ko defaraat. non toilettes yi dañoo réfectionné yëpp. defaraat defaraat seize yëpp ñu defaraat bu ñu ko bàyyoon lañ ko bàyyi mais maa si avant nga dugg si toilette. Mm-hmm. espace boobu ngay gis ay fosse la woon yoo xam ne dañ ko bàyyi même seize turcs yu tot daf doon nekk di créer problème de sécurité. assainissement bi bi tonton Ousmane doon wax. sànq ñu ñëw ñu toj ko. mais gis dal bu nekk dinaa leen ko wan. ñu ko wan. benn dal bu nekk presque mu doon peser plus de une tonne. Mhm. nga xam ne temps colonial la fi nekkoon. Mhm. mais dal bu nekk une tonne mu nekk fi ay plus de trent deux dal ñu ko doon jël. Mhm. bu la wonee image yi ñu doon yëkkati dal yi. dañuy di tiit attanuñ ko. mais ñu def système d' enfouissement technique. ba suul yëpp ba sécuriser. ba nga xam ne foofu bu ñu leen ne foofu force woon bu yàqu bu ñu abandonné doo ko gis si ginnaaw mu curé tëjaat force yëpp ba yëpp a ngi fonctionné macha allah donc yii topp la <laughs> waaw voilà donc il plus de problème pour loolu mm-hmm. donc yàlla jàppale nañu ba def na yi mm-hmm. si ginnaaw am na yoo xam ne dañ ko abandonné woon des années ñu ñëwaat même sóor ren. yéen a ngi defaat ay liggéey ci ci gannaaw yu mhm. yoo xam ne. yooyu ay toilettes la. ay toilettes la toujours la ñuy def priorité ñu. Mhm. pour satisfaire xale yi nga xam ne dinañ am le maximum de toilettes. Mhm. du ñu ram du ñu xaar li nga mën a dugg ci toilette ñu seen. góor ak jigéen ñi du mën a du ñu bokk toilette. yooyu yëpp dañ ko séparer. d'accord yooyu ko def. d'accord. donc fii am nañ blog yoo xam ne léegi même enseignants yi am nañu seen blog mhm. bu ñu leen ko wane ñu def mhm. donc ren ñu jëlaat beneen boo xam ne de réserve la mhm. pour defaraat ko ba mu baax livré waat ko mais tëj ko mu nekk ay sécurité ndox mi ñu gérer ko même ndox ñu ngi nii ñu ñoo koy fay ndoxu fii ñun ñoo koy fay fekkoon nañ fi cent quatre-vingt mille hectares yéen yéen a koy fay ñoo ko fay donc loolu la ñu ñoo koy fay ensuite fële ngay gis mu tudd cafétéria uh-huh. enseignants yi fële lañ doon toog plus de six ans ou sept kenn mësu ko ul uh-huh. ay kaña rek luñ fi si kaña ak leneen uh-huh. dañoo tiit bu ñu la wanee image yi nga tiit toiture bi dem dañ dañ ko def mettre ko à zéro ba tey jii fii ku fi toog di nga bég lépp luy yoo dàq nañ donc liggéey bi foofu la tey jii fu ñu toll gis ngeen ñu ngi defal fleur yi tamit defaraat fleur yi ensuite ren moom dañ ne buñ fi temps bi fekkee ñu def ko sinon tamit am na yeneen perspective yoo xam ne si dañ jëm te yemuñu fi rek gis nga banc yi ñu def yëpp da mm. euh, à partir de samedi doo ko xam ne yëpp la ñuy peinture mm-hmm. yaa vingt banc yu ñu wara a si école mm-hmm. te banc bu nekk yombut vingt cinq mille lay jar mm-hmm. total bi nekk cinq cent mille yoo xam ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko jënd à fond voilà donc loolu biñ koy def pour élèves yi la pour tamit ñun ñu am école boo xam ne ëllëg dañ naa fii lañ jàngee ñëpp xam ne fii dañ defee suñu ay premier pas que bu ñu fàttee fii fii mooy suñu cosaan leneen lu ëpp doole tamit si force bi ñun cinquante ans gisante wu tey ñu gisante lu baax la te keroog bu ñu inauguré toilettes xam nga le 19 novembre c'est la journée mondiale des toilettes mu échappé wuñu keroog bu ñuy sargal le 7 décembre suñu enseignant yu dund yi la ñu jël doon leen sargal fii dafa leen cérémonie yu ngand dafa leen cadeau yu rëy ba seen njaboot yëpp kontaan keroog fii y avait du monde fii lañ toog yendu ñu ñëpp ñoo xam ne gën ñu gisee ñu yendu fi te chaque année day am ñu sargal fi sargal boo xam ne daal moom mu macha allah maa ngi gërëm di sant. ñu ngi lay gërëm aussi tonton tonton Seynou xanaa mu jox suñu yaay bi nga xam moom moo yor jiite yor lépp lu jëm ci wàllum xaalis bi euh, nu mu tuddati sax. mu waa Thiané waa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Mm-hmm. di leen nuyu di leen dalal fii ci école bi. Mm-hmm. voilà Mouatiane association bi li mu def nag bëri na liggéey bi rafet naa bu sukkandikoo ci tonto Ousmane ni wax ak Ousseynou aussi yow nga yor lu jëm ci wàllum xaalis bi ci lañ lay laaj maa ngi lay tooñ sànq naan jigéen <laughs> jigéen ñi waaw dañoo bëgg xaalis loolu lañu bëgg maa ngi wax sànq tonton Ousmane naan ko association bi yoon na xaalis parce que li ngeen liggéey macha allah te amu leen apportu état bi lépp yéen la waaw ah, association bi nag amul xaalis amul xaalis waaw waaw li ñuy liggéey <laughs> li ñuy liggéey. Euh, boo déggee ñu ne association am na xaalis. Mhm. dafay fekk kees gi. ñu am kees boo xam ne am na xaalis bu ñu soxlaa jël ci. Mhm. waaye pratiquement suñu kees la fa nekk mooy cotisation carte de membre. suñu wootee liggéey nag comme ni Kontarine waxee bu xëyee ba ñëw ba gis douche ba dugal euh, image yi ci euh, WhatsApp bi. ci groupe WhatsApp bi. dafa am ñoo xam ne dañu sensible affaire bi dañuy touché aussitôt rek dañu daal di jóg ku am sa dërëm indi ku am sa ñaar dërëm indi ku am sa cinq indi ku am sa cent indi loo am rek nga indi lu ñëw aussi lu ñu soxla ci la ñuy jël dem jëndi ciment carreau peinture mhm. tout loo xalaat daal lu ñu war a jënd rek foofu lañ koy jëndee yàlla mhm. dimbali ñu nag ba ñu am ay bonne volonté yoo xam ne mhm. muy ay membre yu nekkoon ci école bi ñoom ñoo ciy dugal seen loxo waaw suñuy ressource daal foofu lay jóge mhm. waaye financement wu état wala subvention wu état daal mhm. wala leneen daal mhm. amaguñu ko ci école bi waaye nag ñu ngi koy sàkku tamit bëgg nañ ko bëgg nañ ko ndax li ñuy liggéey nii xaalis la te bu ñu sañoon état jàpp ci waaw bu ñu sañoon état jàpp ci lool lool waaye lépp loo gis ñu def rek suñu doolee la ñun les anciens élèves lépp loo gis liggéey bi lépp loo gis mu koy doxal rek suñuy gërëm la ñuy jël di ko si dugal. Mm-hmm. am na am na ay perspectives leneen loo xam ni bëgg ngeen ko ci école bi kees gi fi mu ne li ci nekk peut-être est-ce que euh, mën ngeen a liggéey demee ak moom wala da ngay gën a rek euh, euh, peut-être ngeen yaakaar ci étape pour wéy. non non fi mu ne ne kees gi pratiquement mm-hmm. kees gi sax ñun duñ ko xool duñ ko laal mm-hmm. mais dañuy appel de fonds rek la ñuy def mm-hmm. buñ duggee ci whatsapp bi ne école bi soxla nañ nangam war nañoo defar nangam fii carrelage bi war nañ koo def war nañoo peinture nangam porte yi gis nga portail bi ñu daaj dina la ci ginnaaw fee war ko defar ak yooyu suñ ko waxee aussitôt rek nga xam ne ay bonne volonté la ñu dañuy daal di ñëw mm-hmm. di yónnee seen i dërëm seen i ñaar dërëm mm-hmm. su ko defee ñu dajale loolu daal la ñuy doxale liggéey bi d'accord waaw bu ñu mënee am également peut-être intervention bu vice-président bi tur tur bi am di fa mooy vice-président bi voilà mm-hmm. vice-président voilà tonton am di ñu ñu bàyyi la nga nga nga nuyoo oui maa ngi nuyu maa ngi nuyu yéen je vous souhaite la bienvenue déjà. Mhm. et puis ak seen respecteur yi maa ngi leen di nuyu. yéen fay. Mhm. Mhm. waaw j'attends maa ngi lay loo bëgg xam. voilà euh, école bi ci jafe-jafe yi ñu nekk li ñu amoon ngeen jëlal leen ci lu bari ngeen faj ko. tey jii bari na ci ay école yoo xamante si nii am nañu ko mais amuñu association. yu mel ni hmm. ñii tey li ngeen teg ni hmm. ngeen di ci di ci hmm. liggéey sànq ba tey ñu ngi wax état bi état bi ci point boobu également laa lay interpeller parce que il est temps quand même euh, peut-être état bi jóg jàppale ñu mel ni yéen pour lii ngeen def fii te yeneen école yi mën ko am waaw je te remercie beaucoup maa Euh, on n'a pas encore de récépissé. Mhm. Ça, il faut mhm. on n'a pas encore de c'est en cours. D'accord. Donc, on peut pas faire appel à l'État. Mhm. Mais nous, de notre côté, suñu activité suñu action yëpp ça va pas se se école bi rek. on va des œuvres de philanthropie fii rek ñu leen dem sax dimbali benn école ñu leen defi leneen mhm. et puis dans le cadre de ce de cette association ce n'est pas seulement comme le président l'a dit ce n'est pas seulement euh, refaire l'école mais il y a aussi des des activités de solidarité est-ce qu'on mhm. pense pas à aller créer une mutuelle de santé pour nous les mêmes parce que s'il y a un problème social chez nous on fait un appel de fonds comme l'a dit aussi la trésorière et puis on, on beaucoup de problèmes comme ça. Mhm. Mais il va mhm. falloir, il mhm. un moment donné que qu'on fasse un peu appel à l'État comme tu as dit mais dañuy xaar ba ñu ba ñu légal ba ñu am quand on aura un récépissé et on va faire tout ce truc là et ma bëggoon ajouter encore un truc parce que liggéey bi fii y a des gens aussi qui sont parmi nous c'est des gens qui sont parmi nous qu'il faut féliciter, mhm. à, encourager, mhm. parce que ils travaillent avec leur propre sang. Mmh. pas cité des noms, c'est pas la peine. il faut citer quand même, voilà, encourager les noms. Comme par exemple, ils l'ont dit tout à l'heure, Talandoy. Mhm. C'est un... Il un peu dans le fer. celui qui réfectionne la demoon tey daf koy defal waaw ndarim aussi ndarim aussi mhm. ndarim il est il est exceptionnel on peut le dire mhm. de sa propre poche mhm. ndarim il les paye de sa propre poche sa propre poche donc euh, c'est des trucs à saluer à encourager et fii daal on est, on est une famille. Mhm. cest qu'on est une famille. Mhm. Et comme il l'a dit, le président, ça a été l'idée de notre camarade Momar Diop. Mhm. Il est malade en ce moment. Il peut même pas assister à nos réunions. Il ne peut même pas nous parler. Donc j'ai essayé de l'avoir tout de suite, je ne peux pas l'avoir. Son épouse l'a Diop. Mais celui qui a eu cette idée de créer cette association pour qu'on se retrouve. Il y a des gens, ils se sont pas vus, ça fait ans. ci panel bi lañ dëggal ci panel bi ñu defee assemblée générale yu gisante te c'est pour ces ces retrouvailles là y a pas de prix à c'est ça qu'il faut comprendre loolu mooy njëkk bànneex bi njëkk am Thiès en plus de ça maintenant lii ñëw comme il l'a dit le trésorier c'était lui était le trésorier de la commission ad hoc pour faire les travaux de l'année dernière mhm. ils ont dépensé près de cinq millions de francs cinq millions de francs c'est venu de peut-être j'ai parlé d'un mécène, uh-huh. Pape Ngom, c'est uh-huh. Il est issu de cette école, ça uh-huh. m'a Il nous a donné un million. Lui, il a participé pour un million. Il est venu le top cours ici, il est venu, il en a taille, il dirait un million. Donc, c'est des trucs comme ça qu'on a. Il faut que nous disions sur le calice, sur le budget, pour travailler dans ce pays. Des fois, on ne pas la caisse parce que la caisse, elle n'est pas. La caisse là, c'est rien. Les les, les, les cartes membres. Mais les cartes membres. Ah, ça, c'est rien du tout. Mm -hmm. hein? Il faut des parrainages de tout comme ça mm -hmm. pour qu'on puisse avoir des tout comme ça. Mhm. Les gens ont pas. Et puis derrière, derrière on, on l'a dit, on l'avait dit, on projette. Mhm. Après la, la, reconnaissance un peu de, de l'association, mhm. de faire des demandes d'audience à mhm. des anciennes personnalités qui sont ici de cette époque, dont le premier Momodo Boun Abdoulaye. Abdoulaye c'est mon promo. Hein, il y a Babacar Ngom, comme on l'a dit, l'ancien ministre des Finances aussi, Diop, hein, qui est à a fait, on va avec ces gens-là, et puis peut-être solliciter un appui, leur expliquer et leur demander des orientations pour notre association et de ce fait, en plus, leur demander un soutien pour mhm. qu'on terminer nos objectifs. Mhm. Parce qu'on veut faire de cette école, comme il a mhm. dit le président, un centre d'excellence. Et les résultats n'ont pas menti. Les résultats de, cette année n'ont pas, nous, euh, nous, dans l'objectif que nous nous fixons. Oh, une école d'excellence. C'est ça qu'on veut. Euh, mënoon nañu toog suñu kër. d'accord moral. Mhm. d'avoir participé un peu à, l'amélioration des conditions de vie et de travail des, enseignants et des élèves. C'est ça oh. notre seul propos, c'est mhm. ça. Mhm. C'est l'objectif numéro un visé par l'association Euh, améliorer les conditions de travail et d'études des, enseignants, et des élèves mmh. et maintenant contribuer à la solidarité entre nous. Mmh. solidarité un peu sociale pour nous. parce que on est du troisième âge. il faut qu'on s'entraide un Donc c'est ça le but. Mhm. l'objectif de l'association. Mm, et on est en plein dedans. Mhm. Et comme il l'a dit tout de suite, le, vice-président chargé de l'environnement, mhm. ces toilettes-là, ils sont en train de faire C'était dégueulasse. Dinañ ko xool léegi toilettes. Ici aussi, c'était dégueulasse. Mais ils ont fait un travail formidable. Lui et son équipe. vraiment, ils sont, ils ont mention mhm. spéciale. Ils sont très bien. Ça, ça, faut le reconnaître. l'école, là, quand, comme elle était, elle était mhm. vraiment dégueulasse. Vous voyez les bancs, là, tous ces trucs-là qu'on fait, les mhm. tout. Vraiment, c'est. Je ne pas, je peux pas on peut quantifier ce qu'on fait ici. Je Mais Dieu est grand. sant yàlla sant yàlla waaw joxoon Alaaji Moussa. waaw ñu ngi lay nuyu a baax tonton Moussa. Adja ñu ngi lay fay. ñu mhm. ngi lay jaajëfal ci sa déplacement. Mhm. parce mhm. ñu ah. ko li nga def ñoom xeebuñu ko parce que nit ki buy def dara dafa bëgg ñu gis ko. nit ki buy def dara dafa bëgg ñu yëg ko xam ko. bon président wax na historique association bi. wax na. presque environnement bi hygiène bi ah. wax na. mais man li may dafa may xaw a génn tuuti gaam damay wax lu waral lu ñu song rek def ko man foofu laay waxee parce que ñun man soixante soixante trois laa dugg fii sixième classe de mille neuf cent soixante trois mille neuf fii classe mhm. ak ñeneen mhm. ñu dem ba dellusiwaat c'est parce que ñun ñii euh, association bi mhm. quatre vingt dix neuf pour cent wu association bi ñoo doon ànd démb ak bërki démb avant école ñun pikin mooy pikinité bi xale yi bi wax rek mm-hmm. moo nekk moo feeñ ci association bi mm-hmm. ñii suñuy grand yi ñii 1952 lañ ci dugg mm-hmm. bi école bi ubbee 1952 suñu yi nekk ñu ñëw ñu teete ñu dugal ñu fi ay 63 70 comme ni ko 60 comme ni ko euh, président waxee mais avant boobu ñun ñoo doon ànd di sàcc mango di ànd di rëbbi di ànd di di nappi di ànd di di di comme complicité boobu. ñu doon def complicité bi waaw ñu indi ndarim exploité ko. comité ad hoc bi njëkk ndarim exploité ko moom xam na ne moom parce que environnement lay liggéey. <laughs> Ah, maire yëpp ko xam. il est connu mondialement actuellement. ci affaire environnement. fu nekk lay dem dans tout le dans dans le fu nekk lay dem pour environnement ak hygiène kon xam na moom tax xam na aussi ñi mu doon àndal dem ak bërki dem xamoon na ne bu yuuxoo ñëppay ñëw ñëppay ñëw ndarim keroog bi Assane seen defee euh, dafa romb ñu ne association bu yi dañ koy créé mu ñëw xool def état yi am am bon sens su <laughs> photographier <laughs> rek ñu dugal ko ci panel bi ñu créé woon nda leen daal di déplacé daw ñëw xool bi mu moom ni mu ko waxee bi mu yuuxoo ñun ñëpp a ñëw ñu song indi suñuy bagage suñu suñu yëre song ko dugg liggéey ko ba mu mel ni mu mel hmm? lu ko waral parce que dañ doon ànd démb ak tey ñu mairie xaaruñu état xaaruñu ci kenn ñi ci ñi nga xam ne ay personnalité yi nga xam ne ñu mun na ko turlee ñi ñëw dañu cee fekk gis nga ni nga fekkee nii ñuy ñuy yennu naan ataaya. Mhm. Adja Thiané Mbengue mais moo njëkk xam ne ñu ngi ci école bi mu togg añ këram indi ñu. munte mhm. guddaa bi xam ne ñu ngi fi parce que mu ngi dugg ci buntu école bi mu togg añ indi. Mhm. prési daa prési prési. prési daa di daa xam ne ñu ngi ci kii bi mu envoyé munte na ko toggal añ yóbbu. loolu moo moo indi lii ñu am. en plus suñu ay jarbaat ñoo fi nekk. ci quartier bi. école bi suñu ay jarbaat ñoo fi nekk fi dëkk. gis nga bu ñu commencé liggéey. kenn du ñu ngi fi nga leen fekk. ñëppay jàpp ci liggéey bi kenn du bàyyi ñëppay jàpp. bu ñu songu ñu daan ko. loolu moo ko waral. macha allah xam nga li am importance mooy. Euh, après cinquante ans. ñu kenn ñu retrouvé wu. gis nga retrouvaille boobu. moo am solo ah. non seulement dafa am solo mais dañ ko war a dundalaat. dañ ko war a maintenir. ba suñuy xale yi li li euh, repère war a am. Mhm. xam nga xale yi léegi leen di lor rus naa ko. jomb naa ko waruma ko loolu moo amatul te lu mel nii nag mooy indiwaat loolu xale yi bu ñu ñëwee ñii suñuy jabaat yi ñoo gis ay mag yi nga xam ne am nañu soixante ans liggéey ba baa yi liggéey uh-huh. dix ans nga retraité pendant dix ans ñu uh-huh. wàcc ci école bi yanu soo ba ngoon uh-huh. di sumi sa daal di yanu mooy di arrosé di dugg ci duus yi raxas ñoom duñ duñ war a xaar ku leen woo. ku leen woo na xale yu ndaw yi tout tànk yi fi nekk. bu ñu ñëwee du gis école mu mel. war a ñëw rusa résultat pare résultat yi. du baax catastrophique le <laughs> la preuve ren ji résultat yi ñu am ren ci examen yi. Mhm. waaw classe yi examen. Mhm. yi mu am. nga xam ne dégg na fee am. Mhm. loolu daal moo indi suñu suñu réussite. ngeen baal ma wax. jërëjëf jërëjëf voilà baal ñu jox tonton bi daal. voilà ñu ngi leen di voilà am chance it nag. Euh, parmi ñun. Mhm. nekk aussi membre bureau. Mhm. ñu am délégué de quartier. délégué de quartier. waaw mhm. loolu allah. voilà et <laughs> laa tudd. di délégué de quartier gox bi. man promotion de la man ak sama jumelle la trésorière. Mhm. Adja Thiané Mbengue. Mhm. man daal damay sant yàlla. Mhm. ndax lii am ci école bi ci sama ay la amee. ndax sama pap yi ñu jiitu yëpp ne ma délégaté gaañu nañu. man ma nekk ko depuis 2017. lii xew ci sama ay. kon dama koy sant yàlla te doon fi jànge li ñu fi def lépp nag du nekk di répété waa li ñu fi wax lépp ndax lépp dëggal lépp na lu demee te bañ a guddal waaye association bi daal yàlla gën a yàgg gën sax source bi daal financement bi mooy volontariat ndax xam nga cotisant yi ñuy cotiser yoru lii waaye bu ñu dépensé daaw cinq millions deux cent la ñu dépensé bi ci école <laughs> ndax dañu peinture école bi yëpp peinture classe yëpp. Mm-hmm. def lépp jënd ñaari photocopies yu bees tàq. jox ñaari école yi. Mm-hmm. maa ngi budget bi daal cinq millions deux cent fi dépassé. Mm-hmm. te ren ñu ngi commencé ñu ngi xam ne kañ nekk kañ lay jeex. banc public yi ngeen di gis yëpp ay banc yu seer la te dañ koy parrainer bu ci nekk vingt cinq mille te lépp ci association ñoo koy parrainer kenn jël benn loolu daal laa bon expliquer ni mu demee. am daal sama président sama président wax nañu lépp. dama mhm. ci nekk di répété waat daal. pour gën a guddal. vraiment sant. Mhm. ci ni ngeen ñu seet see dootu ñu seet see wax leen ni ñuy dund suñu association bi. di kontaan vraiment ci Leral TV ñu ñëw di xool suñu liggéey. Mhm. maa ngi giar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq. Ah, li ma ci wax lu bari man daal. li ma naan association bi. ñuy def njëkk def mooy sant Momar Diop. ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla indi shifaay yàlla fëgg boppam moom ñi dugal ci suñu xel lii ba mën a ñu mën a réaliser lii man damay wax naan suñu objectif du école 2 rek man damay wax ne objectif association bi na nekk Pikine waay yi ñu génn école bi ba dem Pikine wër école bi li ko wër yëpp ba yeneen école ak yeneen école roy ñu ba def lii ba Pikine nekk Pikine royukaay mhm. ñëpp di ci roy man loolu laay wax di sant membre yi jàmbaar ngeen macha allah fii ñëpp ay jàmbaar mhm. te maa ngi leen wax tuuti sama doom mhm. ñëpp nag dañoo takk ay doom tànk ñu fi toog ñëpp borom doom ndombay tànk lañu te ñëpp a wàcc seen bopp ñëw di gas di tuur mbalit di raxas di fobeere kon loolu yombul yombul loolu xale yi dañ cee war a gis dañ cee war exemple xam ne rëy baaxul nit day wàcce boppam oyof loolu laa gis ci association bi gis naa ne ñu oyof lañu ñu wàcce seen bopp lañu ñu am jotu école bi lañu ñu nangu ci école bi lañu yàlla na yàlla fay ndax ñoom presque seen doomi jàngeetuñu fi ah, seen i sët ñoo fi jànge wala seen i mbokk waaye du ci kenn sa doom jàngeetu wala sa doom doom jàngeetu fi donc démb rekk leen indi démb rek ñuy fay bor xam ne fii moo njëkk fi ñu commencé lépp fii moo leen bâtir base bi fii la ñu bugg a dellu njëkk a loolu rek. d'accord ah, munte moom tamit ci yi la bokk. waaw ci ba pare di yaayu école bi. di yaayu école bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm. Euh, di leen nuyu yéen waa leeral. di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii. di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. di sant sama sama grand yi ndax li tax ma leen di sant sant bu boo xamante ne daal bu bu amul àpp parce que dañu nekk samay mag yoo xam ne euh, dama yaakaar ne àdduna mënoon na too mënoon na dox ba ñu dem ba màgget te duñu xamante ndax ñoom ñoo ñu jiitu fii ci école bi man fii laa jànge mais ñoom bañ fi nekk boobu temps ñu nekk ñu fi woon bu dul woon association bi amaanaa man damay rombanteek ñoom te duma leen xam waaye association bi dafa delloo si waat ñu dajaloo fii ñun ñëpp ñu nekk ay borom daraja nekk ay borom ndombal tànk oyofal seen bopp xeebuñu kenn man ni ngay gis nii fi ñu ma teg teguñu fa kenn te maa ci gën a nekk xale gën ci doyadi waaye dama fi nekk sonal leen wit macha allah wax dëgg yàlla ñu nekk nekk association boo xamante ne amu ci kenn ku ci am xaar ma yàlla ku ci nekk loo ci def rek yaa ngi koy xeeb loo ci def yaa ngi koy xeeb man ñoom ñëpp ba ci jigéen ñi sama grande sœur yi ngay gis nii ay jigéen yu jàmbaare lu ñu wax ñu dagg lu ñu wax ñu kupp góor ñi nii la ñuy takkee seen digg comme ni ko kii waxee ñu ngi ci bale bi ñu ngi ci rato bi ndarim moom mention spéciale man dama koy xool ba yàgg barki démb laa ñëw fii ci toilette yi ndax fekkaw ma ñu koy defar maa leen dama leen di laal ndax chaise yu bees la wala wala yi fi nekkoon la ñu ne ma yi fi nekkoon la ma nekkoon noonu non non c'est pas possible chaise yi moom ngeen defar nii bu mu baax utaat ay porte yu bees peinturaat defaral yëpp boo fi ne boo duggee macha allah fii ay jaan ak lu lépp génn na fi fii lu fi génnul amul ñun fii lañ nekk ci koñ bi mais élèves yi sunu kër yi la ñuy naane fa la ñuy sawe école bi xale munu fee naan mhm. munu fee saw ci lu mu meloon mais léegi fi mu toll ni au contraire nit ñi dañuy xëcc pour ñëw ci école bi nit ñi dañuy xëccu de pour ñëw ci école bi daaw yokk na te xam naa ren dina gën a dina gën a yokkaat te bu njëkk koo inscription école 2 dala naan mukk sama doom du fa dem kon boog li may sant sama mag yi di leen gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla leen fi yàlla bàyyi suñu kanam ba ca kanam a kanam a kanam yal leen yàlla may kàttan ubbi gën leen ubbi seen buntu wërsëg yi dooleel leen ba ñu eggaleeg seen sago maa ngi leen di remercier bu baax a baax a baax di leen gërëm bu baax voilà merci beaucoup merci alors Aïcha tonton Ousmane ñu euh, bàyyi la rek euh, ñu jeexal ak yow. Mhm. voilà euh, ndax gis nañ ko li askan bi dund première émission bi tey yéen nañ ko defal école bi nekkoon nag ci ay. Euh, li nga xam ne moo di peut-être euh, difficulté mën nañ ko waxee noonu ni mu meloon léegi ak fi ngeen ko àndee. ne mhm. suñu yaay bi mu ngi koy wax euh, léegi ci école kër yi mu dend lañ daan dem bu mu mhm. bëggee toilette ku wax xale fu muy dajaloo. Mhm. wax lu jëm ci wàllum hygiène. ngeen def ci lu am solo macha allah mu nekk loo xam ne fallait que ñu jóg. wan ko askan wi parce que émission bi loolu moo ko tax a jóg. absolument absolument vraiment dañ leen di gërëm di leen sant bu baax a baax a baax. Ah, comme ni ngeen ko xamee monde bi ñu nekk monde communication la waaw euh, te it ñi bëgg lu baax bari nañu xëy na léeg-léeg àgg ci dafay jafe moo tax bu dee am na ñoo xam ne yàlla xéwal na leen ba ñu am xalaat yàlla kàttal na leen ba ñu jëf lu mel nii te ñëpp soxla ko wane ko dafay am solo waaw ndax dina tax ñeneen ñu nekk feneen ne ah kon kat ëllëg ñun tamit mën nañ am lii euh, ba démb rek bi ñu le maire Cheikh Diop de Pikine Ouest recevoir ne yéen seen association bi association de référence la te it euh, vraiment day ñëw ci li colonel doon wax léegi am di euh, am naa yaakaar ni seen mission du yem rek ci école 2 waaw parce que ëllëg bëgg naa yeneen école yi nekk ci commune bi ñoom tamit ñu am ay association yu mel ni comme seen association bi ñu mhm. inspiré wu ci yéen noo leen mënee gunge it ngeen gunge leen ko waaw loolu yëpp dafay dellu si rek ci Pikine waaw ginnaaw nag ñu sant yàlla lii ñu def nii man nañ ne rek hors d'œuvre la hors la sànq wax nañ ne fii dañu bëgg mu nekk un centre d'excellence un centre de référence loolu nag du liggéeyu ñaari fan du liggéeyu ñaari at liggéey la ci diir euh, ñu ngi incha allah fii ak mois de décembre dinañ am feuille de route boo xam ne si ci la ñuy tënk ci jubluwaay boobu ñu am lan la ñuy bëgg a def ci ñetti at yi di ñëw incha allah mois de décembre dinañ am feuille de route boobu dina taxaw feuille de route boobu su taxawee am nañ commission boo xam ne si mooy yor finance économie ak coopération bu boobaa commission boobu dina jóg liggéey ci luy financer programme boobu nga xam ne dinañ ko taxawal bu boobaa nag dina fekk récépissé bi taxaw bu boobaa nag dinañ gën a féex pour tàllal loxo état tàllal loxo collectivité territorial bi mhm. wut sax yeneen partenaire pour que li nga xam ne mooy sunu jubluwaay ñu àgg ci waaw mhm. du sunu responsabilité nag mhm. waaye mën nañ ne am nañ ci responsabilité morale mhm. ginnaaw yàlla def nañu jaaroon fii tey ñu am devoir de rendre devoir de partage yàlla nañu yàlla kàttanal waaw vraiment dañuy ñaanal yàlla mbooloo mi parce que mbooloo mi mbooloo mu yàlla tànnal boppam la waaw du ci ñun de mbooloo mu yàlla tànnal boppam la sunu frère Mamar yàlla na ko yàlla yëkkati waaw euh, dinaa wax nag ne Mamar bi yàlla defee mu am idée boobu aussi dafa am kenn ci sunu maître yi fi doon jàngale ñu koy wax monsieur Ndiaye Bernard mu encouragé ko ci gunge ko ci ba ñenn ñu ci bari sax daanaka moo leen booleeg moom kooku yi dañuy ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi ak wér moom ak ñeneen ñi fi nekkaloon waaw ah yéen tamit yàlla neen yàlla dool di jàppale seen mission yàlla def ci barke yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci yeneen réew ci àdduna bi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa Euh. Ah, <laughs> waaw ah, ñu xaaral bi. moom man man mooy sama man sama kër. moom laa kale sama oto moom laa kale 96 point leeral euh, FM. non et euh, ñun ñi nga xam ne dañoo nostalgique. Mhm. démb ak bërki mhm. mhm. démb. lañ ñuy indil. waxtaanu mag ñi démb bërki démb lañ indil. ah émission émission sénégalaise la. ah vraiment daal yàlla na leen yàlla dooli sutura. amiin amiin li yéen a xam de leeral. Mhm. soit TV ou bien FM. wala leeral journal wala leeral. point euh, euh, point point net. yéen a xam li ngeen bëgg. en tout cas euh, Sénégal yi ñu ngi leen di bàyyi xel de. Mhm. Sénégal yi nag kenn sexalu leen suukar. Mhm. loo leen defee lu baax. ñu consommé ko. comme école bi nii école bi mel rek. bi bu ñu ko toppatoowul woon nii mu mel nii. kenn du fi ñëw kenn du ko wax. leeral point bu aussi noonu la. def leen lu baax gaa ñu consommé ko. ñu jëm ca kanam Sénégal avance. ñu ngi leen di jaajëfal en tout cas rafetlu bu baax a baax euh, waxtaan bi euh, mbégte la si ñun mu nekk suñu premier numéro ñu defee ko fii ci euh, Pikine ci école Pikine donc di leen remercier également ci ci liggéey bi li askan bi di dund nii la ñëw nañ fii wan leen liggéey bu am solo bi nga xam ne association bi def na ko ci école bi ñuy am tamit mbëbët itam def fi leneen ñuy ñaan rek yàlla suñu borom yombalal leen ko mais également wax leen nekk nii yéen ñi ñuy seetaan tamit xaar leen ñu te xam ne dinañu ñëw tamit euh, ci seen i diwaan ngir wane jafe-jafe yi nga xam ne moom moo fa am remercier maaw mi euh, Pao Mar ak Yirim ñoom ñoo nekkoon ci gannaaw di leen jox di daje fii ak 15 jours incha allah ci seen benn numéro li askan di leen jox.